Assalamualaikum. gars yi avocat Sonko la gars ma len leen den ziar di len ñaanal jàmm te di ñaanal sama bop gars president président fay Faye Touba tay la lan jamono ji may waxee ak yeen ma ngi ci euh, lundi 15 avril à 3 h 7 minutes Eh, Jamaah Faye jamono ji may wax ak yéen ma nga Touba wala jóge na Touba léegi laa jot ci information bi damaa xawoon jàpp tey mais président Diomaye man def sama xol laay wax xam nga tak moo mu sama xol lu ne dañ ko fee taxé surtout mu am ay saay-saay yoo xam ne dañoo bu boone ay murit lañ ñenn ñi duñu ay murit ñu ay julit lañ dama ci tudd ay tur Fall Fall Mbawor sëñ Modou Boussa Dieng ak ñeneen ñu mel na ñoom Diomaye première sorteem première génnam muy seeti kenn. Naby Vision. am na ñu ko jege de am na xalifa yi ko jege am na këri diina yi ko jege Diomaye jubali Touba mu siggileetu siggileetuñu ko ñun waa Touba seetiwul demul France demul Allemagne demul fenn Touba la njëkke mi premier génn bu mu njëkk a génn mu jaglel ko wa Touba kon man nañ ñu jox nañu cër sagalati nañu kon fofu tëj na fi gémmiñu gaay benen bi moy bi mu ñëwé ay dalam da ko simmi ba ci biir kër sëñ Muntaxa dafa simmi ay dalam ta waji fi joggé biir jumaa Touba sax dafa daan soli dàll yaakaar naa kon bu ngeen di wër ku gën a am taalibe te nafiq japp len jomay ngeen di jël benen bi moy lima ma wóor te wóor ma ne ba jomaay toog naa ba dem te tuddu ko ay waxi politique ay waxi ak wax ay waxi militant ak waxi suma falowaatee dina fi def li soma ma ki fi jóge ñepp xam nañ né sa bu ma santo waxi politique lay wax ni mi jomay lér na mané ay yéeneem ci Touba lay wax ba ni mi gaay am na nag ay wuyu yu ma dégg ñu naan Ousmane Sonko lan moo tax ñëwut Ousmane Sonko daa mere waa Touba moo tax ñëwut <laughs> yéen daal faaw ngeen wut fu ngeen jàppandu daal nee ngeen du ngeen bàyyi te du ngeen daanu yéen a ñàkk jom yéen a ñàkk rasu yéen a ñàkk racc raccal waaye jomaay daal jërë ngeen jëf ci nit ñu siggile jërë ngeen jëf ci nit ñu siggile yaa neex a faral de billaahi waa Pastef yéen a neex a faral xaw ma ne ku lay conseillé mais eh, am nga conseiller macha allah bu ko dàq. gars yi Basirou tey micro la laal de micro waa ana ñoom ñoom ñoom ñoom mu ne ko xam yen ñi may bëgg a wax. maasu mbay piix geeg ñoom seen ñooñu. jamaay daa mel ni indaale wut <laughs> indaale wut ku jot de bëgguma tooñ géwél yi waaye maasu mbay piix gi daal mel ne ñëwuñu de <laughs> lii xeeñ baaxut ci yéen de. xéñ ba xut yeen li xéñ li xéñ arrangé wu len jomay ñew na sét sëñ bi waxtaan ak mom man ak li ma gëna neex ci jomay dafa wax ak sëñ bi wax kaddu yo xam jomay neena nee sëñ bi mënu ñoo baña wax ak yeen ndax lu ñu def ci dëkk bi dañ leen ci ñaan tàllal seen nangu seen ñaan te dañ leen ci laaj seen xalaat ngeen def ci ci yalla señ señ Muntaxa pare joxna jomay kamilul alquran bu ngadda jono na ko sijaada jullikaay oh wa sëñ Muntaxa lim am rek la joxe moy alquran lim am rek la joxe moy sijaada pour julli neeku fi nan ko ay murit ngaa. Naby Vision. dug nga feeg genn nga fa loolu lepp day yak mbake balla ah oh oh le fal Fall wor oh le Modou sa jeng, oh le Woyou crasse boy yoy nonu yërëm na len tay lan ngeen di après lan ngeen di fent ci dol ni de wax jeex na mom lu ngeen di fen dal bimu dol ni la laa xamul lan la wara a waye seigne sëñ Mountakha tejj na seen gémmiñ Basiru tejj na seen gémmiñ Basiru neena na bi mané won woon avant may dem fenn dem bitim rew wala may dem fenn na njëkke fi ci yow oh ku la joxu cër du la def li oh dono jox cër danoo jox cër jërëjëf jërëjëf mais jërëjëf Pastef Touba Pastef Touba jaaraama gis naa ni ngeen defee affaire bi sous terrain dox ko ci suuf Basiru nee na sëñ bi Basiru nee na sëñ bi mënuñu woon a jóge ci lu mel ne mitin di jàll si fi ci yow ndax day mel ne kon dañoo bëtt sa bëgg-bëgg. oh am na ko sëñ bi ne woon bu yëngu-yëngal am ci dëkk bi de mun ne ko mënuñu fee wax. président mënut a toog fenn wax ba jug te sama tudd politique. yéen a ñàkk teggin. ku sa xol wowut wala sa xol bona bona bona bona bona bon ba egg ci bon di nga ñew te di nga nangul jomay salafiste bi da amuk talibé de salafiste bi rek <laughs> da amuk talibé de gaay xol dana dina dina dina xolaat taxawayam ci gouvernement bu bes bi quoi ndax nee na seigne Touba rek la fa ak njabootam <laughs> jël len pot tamit pot pot xam ngeen ko pot momu non pot pot de lu bon lu ne moom tamit yàq na ko fi eh, eh, suñu suñu gaay yi pot nee na c'est fini nee na yi dugg na ci xolu sénégalais yi ba pare <laughs> toog leen foofu yow sax sa bos lekk ba may fokkati ko nga xam yéen ñëpp ay ñëw amul ku dul ñëw yéen ñëpp ay ñëw xale bi yaru na xale bi boo na xale bi nangu naa liggéey xale bi am na yéen ci Sénégal lan moo des lan moo des lan moo des yàlla may na leen président bu yaru may na leen président bu rafet xaj na leen jël na jël na euh, dangin gi fi nekkoon yóbbu ko indil leen xale bu xale bu boo indil leen xale bu tuuti nangu naa liggéey te yéene a Sénégal waa léegi lan moo des yéen ñëppay ñëw bu dee ba ngeen lu baax ah waaw très bien sax kon ay ñoom yàgg baax ak ñoom seen ñoo ñu daan raam ak di ñu jaay affaire de murit gi <laughs> kon da ngeen di xaar léegi xam na ci yàlla ah waye lepp nak mérite bi ñing koy jéglél wa passé Touba lii loxoy passé Touba jugu ci li ma gis tay ji ni ci Touba. nabi Vision. loxoy Cheikh toro ñi ma àndal ñu ci dé ah jaarama yeen waye jaarama yeen jaarama wa passé Touba Yalla ñu leen yalla fayal yalla bu yaakar tas ku leen xaar yalla na xaddi barke sayidina mohammed yalla ñu yalla may ndam. alaykum wa rahmatullah patriote yi ma ngi leen di nuyu bu baax di leen ziaré di leen jox seen waye di wax ne man li ma gën a neex ci Basiiru moom saa bu jëfee rek sama sama bëgg sama bokk ci projet bi moom dama koy gën a fësal ba pare ba pare maanaam du ma ma ko réccu fenn fenn fenn wax dëgg yàlla maa am daal positif gi ma doon ak combat bi xeex ma ci xeex ba ñu àgg fii daal moom moom dama ciy gën a am feer rek dama ciy gën a am fierté ndax moom jëf ji muy jëf maanaam day am ay ñoo xam ne da leen di fenloo ci biir jëf ci parce que ñun biñ nekkee ci parti bi ba léegi nekk ci projet bi nekk ci combat bi di xeex ku ne xam ne ne ñi nga xam ne ñoonu daan xeex diggante Touba ba Daaru Muxti amuñu woon benn argument boo xamante si nii mën nañ koo jox kilifay lu dul créer ay fen yéen a ngi fàttaliku vidéo bi ñu fi daggoon daan bu ma falee gàmm dootu fi am màggal dootu fi am te loolu lépp ñu tegoon ko ci mensonge dem ba yàgg ñu naan salafiste la dem ba yàgg ñu naan gëmuñu mag ñi dem ba yàgg ñu naan buñ faloo sax ñoom dañuy daaneel xabri politicien ba ca Daaru ñu koy la doon politique ren naan bu falo xabruy bayti yi lay njëkk a daaneel dégg nga léegi nag Jomaay Fay le président Ousmane Sonko waxoon rek 2019 mitingu Mbàkke ba mu ne yéen ñi nga xamante si nii yéenay jéem a diaboliser bu Serigne Touba dikkaatoon ma taxaw ngeen taxaw mu ne leen usmaan mooy sama mooy sama taalibe loolu lañ gis ci Jomaay Jomaay dal na Jomaay am nay teggin Jomaay am na yar jomaay doxiinu taalibe lay dox te nekkul loo xam ne daf koy jéem a incarné waaye dafa nekk loo xam ne dafa nekk ci moom mu di ko dund kon mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci suñ côté gii di fi politique muy diggante Touba ak Daaru dafa nekk côté gu sensible gu jafee politique gu jafee nekk ci opposition gu jafee ànd ak président Ousmane Sonko ñun daf noo sagal daf noo siggil bu baax a baax a baax a baax a baax wala asim liggéey bi euh, réew mi dañ koy liggéey dañ koy liggéey de xana lenn la nit di réccu daal mooy ña yéex a xam président Ousmane Sonko waaye si président Ousmane Sonko boo ko xasee xam jaxasoog moom da ko bëgg da ko bëgg parce que ci lenn la nekk muy liggéey jaamu yàlla parce que li muy def jaamu yàlla la bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk kon moom ñun moom sun sun laxasaay ñu ngi koy gën a li di yokkaat sun pastéef bu baax a baax a baax a baax a baax président Diomaye fi nga teg sa tànk foofu la jub jubbanti ak jubal sàppe yi day leer de day jub de barke alxuraan <laughs> gis naa gis naa ay journaliste yu toog ci télé yi xaw may chroniqueur yi bugaan yooyu yu naan li Bassirou Diomaye Faye dem Touba ziare ji lan moo ci extraordinaire li ci extraordinaire xam ngeen ko li ci extraordinaire xam ngeen ko moom mooy fen yi nga xam ne da ngeen ko koo fenaloon bi mu jàllee rek RFM daa takk rajo yi daan ne ñun ñoo wax ne faalewuñ benn sëriñ benn sëriñ faluñu dinu dinu katchal fu ngeen tollu dinu katchal fu ngeen tollu fu mu defé discours ngeen taxaw di jaxase nit ñi tay mu dem ziaré ji ngeen naan lan mo ci extraordinaire li ci extraordinaire moy katch yi nga xam mom ngeen nekké won katch yoy ci bopam basiru dindi nako bam set mu sanni ci Allah ba wax leen leneen gis nga gis nga sunu nguur gi muy gouvernement bi akay jafé opposé akay jafé opposé débat d'idée débat d'idée la woté fi parce que boudé lamiñu ñaaw ak rëy lamiñ ëppoo leen nu mais débat d'idée mom da ngeen ci ñëw par la force parce que loolu la bas woté bas loolu la woté bas loolu la woté mbir mi da extraordinaire ba neex nga naan nga lan mochi ci lan mo ci extraordinaire li ci extraordinaire bari na mom moy da ngeen doon jaboliser ci at yi ñu génn yépp di wër fu ne ngeen wër fa di fenn di dajale tey loolu ngeen doon fen lépp Basiiru tonni ba mu set mu sànni ko ca àll ba ne leen wax leen leneen lool du débat bi débat bi moom mooy ngeen taxaw ci plateau yi indi ay ay idées yu leer nañ ay proposition ñun bi ñu ñëwee 2014 loolu lañ njëkk a teg ak yéen lu leer nañ mel ni midi di indi ay débat d'idées di ko ci teg bi ngeen demee ba yàgg ngeen indi seen i tappale ba bëgg ñoo xoj rey ñu ci ay ay diabolisation ñu wan leen ne gënoon na gëloo leen noonu la ñaaw làmmiñ léegi nag ñëwaat leen ci débat de ñu débattre pour luy avancer loo réew mi ci loolu la ñuy woote incha allah ku ñeme na nga ñëw. sama kaddu yi nag dama ko yëkkati di ko jëmale ci président réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax te jii la ñëwoon kër Cheikh Mountakha Mbacké te Daaru Minam waaye Bassirou Diomaye jaxaar fay mi yaraat nañu bari ci ay tegginam. ndax bi dugg see ci kër sëñ Muntaxa buntu mu njëkk bi ci la simi ay laalam dox ba ci serigne bi te loolu néewaan na nit du ko def ci nit ñi nga xamanteni duñ dara ci réew mi sàkkantuma nak président réew mi kon mom wala na ni nguur gi ko seen borom jox luy jaar la te luy jeex la mu ñëwaat ci jumaa yi sëñ ji simmi ay dalam dem ba ci barabu sëñ Tuubaa ñaan la mi ñaan and ak sëriñ Basiiru abdou Xaadar kon faaw doom adam yi xamni ni Basiiru Jomaay Jaaxaar Fay nituk diina la nituk l'islam la bañul ben sëriñ goddiwul benn sëriñ beddiwul benn sëriñ waaw waaw président bu man matu président la ndax bi mu jógee Dakar jëm si Touba la mu njëkk a wax mooy bu benn kenn téye benn oto bàyyi li nit ñu dox seen i soxla ba ñëwee ba Touba sereet yeeg oto yeeg amul dara luñ ci téye waaw ba diir bi mu jàlla la wax amul luñ ci téye waaw président bu mel noonu mësuñu ko am kon ñoo ngi ñaan li askan wi séntu ci moom yàlla nañu ko gis ci barkab Cheikhul Khadim ñun da yaraat nga nu te defaraat nga nu barke borom Touba Assalamualaikum, assalamualaikum patriote di nuyo wat siara wat ba tey ña nga ñew president basiru Diomaye Diakhar new Touba xam ngeen ne tay ji la ñew Touba siar Serigne Mountakha siar si Touba gep mourid yep julit yep tay ji ko ci lamb xolam julit bu xol ak julitam set ah tay bëgg na ndax xam ngeen ne Touba 98 lañ fale basiru Diomaye fay Touba yene garmi yene gor waye sekk ngeen ko gor sekk ngeen ko garmi dégg ngeen ko ci événement korite gi lim njëkk a cité mooy donga daara yi ñuy jàngale sëriñ si ak naafilekat yi kooku xam nga ne daaraan ci xolam gis ngeen ko bi mu gañee demul France demul Allemagne demul Angleterre Touba la ñëw première sorteem dégguma ko njaga ñaaw kon a ngi doog a am président ab jullit yéen a ngi doog a am gor yéen a ngi doog a am am président sénégalais moom Bassirou Diomaye Faye sa ñëw gii nga ñëw Touba nag limu defar dafa bari billahi wal kitab dina am cedd yu bon yu rek touba yo xamne tay duñu reer barke cheikhul khadim tay luñu massa am ban juddo ci seen nday ak seen baay bis bi ñu am tay ji naqar ñu am tay musuñu ko am sa ñew gi nga ñew touba waye nak ñun begg nañ begg mo xamne musuñu mësuñoo begg mi begg bég yu gi nga jàkkaarloog suñu kilifa gii sëñ Muntaxa mi nga xamne moy mooy touba begg nañ ci torop te billahi begg na ci kamil bi bu la joxe fonk nako kon Basiru sa yoon dana leer insha allah rabbi yéen waa Touba nag Bassirou Diomaye Faye nee na dina leen tàggaleeg mar loolu la wax ci kanamu sëñ Mountakha te xam ngeen diiru nguurug Macky Sall waa Touba dañuy rooti téeméeri quartier yoo wàññi juróom-ñett dañuy rooti te ngeen ne yéen a ngi fanweeri forage ak juróom waaye noonu sëñ Touba yi tëj ndox ma ne taalibi sëñ Touba yi du naan ci ndox mi Bassirou noonu loolu dana fi jóg Bassirou nee na yéen baykat dina leen jàppale ci saayir dina leen jàppale ci baatin Touba bu ngeen leen jàppalee baykat yi jàppale ñu amul ndox mu ñu naan loolu desal ñu mu ne déedéet des na bu tawee da ngeen am yu métti yoo xam ne seen i canal dañ koo détourné sàcc ko yóbbu ko ci yeneen dëkk ba nee na dina lijjanti inondation yi yi te boo ko waxee dana ko def kon waa Touba seen gan lii la leen indil buuñaa lii la leen indil sëriñ barke alxuraanu karim Touba nag. la way kat doon fukki di gas fukki di sul, dal wa tuba tuba ba saa gas deux doon suul di di di gas motax kambu gu rëy am fa kàmb gu rëy rëy rëy Touba am fa Bassirou Diomaye fay ñew nga dekk bu la sop ñew nga ci kun sop muy seigne Mountakha barke alxuraan mbooleem ñu doon jabalise ak wax tay ji duñu reer siggi nañ siggil nga sagal nga ñu man damaa bég tey barke alxuraan damaa bég tey gisal bii bi yar xoolal gii xarkanam boo ko xoolee xam ne iñaan nekku ci reewande nekku ci bew nekku ci fuuy nekku ci waaye jëmb ji président de la république la xool leen nem boo foo ci kanamu sëñ Muntaxa lii ban président moo ko fi mas a def ah léegi ñu defal xamoo ko barke seexul xaddim ban demaat ci élection deux yi ñu leen mayoon sax daan ko fo deen foqaati benn ba te la ma waxoon sama vidéo ba rek quatre-vingt-dix-huit pour cent yi yi ñu ngi koy jéggulu cent lan la waroon a jox pour cent waaye ñaari nag xamal ne ñaari li leen tee ñëw kenn ki daa aaye woon kenn ki daa aaye woon kenn ki ne ñu ne ko noo wataa waaye bu du woon loolu cent pour cent la ñuy teg sa loxo te ban demanteeg jàmm gars yi ne leer na ma ne léegi tey nga gis ñu génn naan montage la montage naan photo yi Basiru Basiru Diomaye Faye ah ñoom kat ñoro wana wax la gëmu tarixa yi gëmu kër diine yi nan da bi mi campagne bi ñëw ba mbacké da jallu Touba légui campagne wa Touba bokk nañ ci ñuko fal ndax bureau bu ne 1000 la fa bassir djumaay fay gagné gaay yi ci des ay 18 ak ay 13 bi mu jëlee réew mi première sortem Touba la ko def bassir djumaay fay ñëw na ci seigne moutakha siyaasi ko yeen ñu doon wax nan salafiste la légui da ngeen ni génn jéggalu ko jéggalu réew mi wala da ngeen ni continuer di wax seen wax ñaar waye nak amul problème parce que am na ñoo xam amuñu kenn problème seen bopp lañ amul problème koo xam ne bu ne boo nekkoon ci ndox di sëmbu sax ndox mi di tis danaa la sa poussière bi mi ngi may laal kooku amut ak kenn problème boppam la amal problème sëñ Basiru lu waa Touba réccuwuñ li nga woteel nekk ci dëkk bi nag wax ci yow lu ñaaw ak ñi nekk ci yeneen dëkk di lañ doon yàq lépp maanaam daa mujj defaroo ndax ñun mënatuñoo wax ci yow lu ñu naqari xanaa xam ne am na ci yoo xam ne bëggoon nañ la waaye bëgg gi doole ko ndax ñoom Sëñ Tuubaa rek lañ bëgg sa première sortie nga ñëw Touba toog ak sëñ Muntaxa ma jox la téereb al sunu borom alxuraanul karim jox la sa yaada nga wax fi ñaari wax yoo xam ne moom la gën a bëgg nun murid yi fi ne ndox mi nuy naan na ñëw doy lool meneen beneen bi mooy ndox mi fiy taar te mën ta dem nga wax ci ngir mu wutal ko ay canal yoo ko fi jël suñu xool seet daal lu mën a xew waaw salafiste yeeg yooyu loolu gars yi da ngeen continuer di wax ni moom la wala mané photo yi du montage ba Bassirou Diomaye fay premier sortem Touba lako def khadim borom jumaa ji balé si buri sëñ Mbàkke Maram fo nek ñu fekkal fa sëñ Muntaxa tok jotaay cheikhul khadim sëñ Bassirou ay bayam président de la république sëñ Bassirou sëñ Bassirou ñëw seet sëñ Muntaxa mi fi togal sëñ Touba togal fi sëñ Bassirou waaye wàcc nga way kay ay kër ci Bassirou Diomaye fay premier sortie Touba khadim borom jumaa ji balé si buri sëñ Mbàkke Maram lu mën a xew Bassirou bëgg na ne rëcc wuñ nga nga woteele waa Touba yeen ñu woteeloon Bassirou wota bu metti ba Bassirou ñew na ci yeen tay ta da koo wikuloo tan sax mu siiw ndax antu dara daray bruit barke alquran bu ko neexon ñu ñu ñu kar ko ci mbedi yi ko moo yëngal ga sam kii ndax daan na fi am waaye moom rek premier sortie president de la republique nga ñew Touba toga kam seigne suñ Touba te amul bruit wa ya mer wa ya yaru wa ya ah. <laughs> gisoon ni ñu réew dañu chum xana li moy bul bëggate dekk ba duggu fa bu la dekk ba bëggee demal way wa Touba nak ñoo la bëgg soy xolaan image da ngay xamne Touba ñoo la tan <laughs> barke Serigne Touba mbake doni president leen mu jot macha allah lii rafet na de xana tay nangou ngene amna ño xamne nak ay xolu xeer lañ yor mom lu image rafet rafet lu mu bax bax ñom duñ wax allah mu jot Sall Ngari kon man Sall Ngari fay Biram Penda wagan, dugu dugu wagan, ya mom dekk bi ya mom rew mi ya mom senegal señ bi yalla nako fi yalla yagal yalla na fi yalla bàyyi yalla saxal ko fi ndax mag nak jarna ci dekk moom lu rafet rek ci lay dox sëñ bi yal na la fi yàlla bàyyi yàlla wéral la te wéral cër yi yàlla yàggal la fi nga yàgg uuf njaboot gi defar rek la tax a jóg barki Sëriñ Tuubaa booy xel xool image yi dangay xam ne lu rafet rek rafet te ku ñu xam-xam ne suñ président bi yàlla ñu ko indil mais am na yar de barki Sëriñ Tuubaa Mbàkke Jomaay am na yar wax leen macha allah. ay sa mbokk yi Sëriñ Bass Bamba Xewal te de sama xool bi mu ngi mel ni wan ak wan a gumbot tey de big naa tey de kontaan naa kan moo bégloo son excellence président Basiri jomay fay yàlla nga gudd fan ànd ak wër tey de bégloo nga ma ah sama wax ji agsi na li ñaan son excellence président Basiri jomay fay dugal nga bit dee tey bit bu rëy nga dugal waa bitu dernière minute ndeysaan bitu prolongation moom nga dugal def nga lu rëy wane yar goo xam ne teggin yar lu mu la mayul yar lu mu la mayul reewande du la may fi nga sumee sa dàll day maa ngi door a gis kilifa bu fa sumee dàllam président bu fa sumee dàllam premier ministre bu fa sumee dàllam nga def tànku neen ndeysaan ndax nga nga sukk ci kanamam ki nga jàkkaarloo noonu yàlla moo de moo jël àdduna jox ko àdduna jox ko àdduna ak àllaaxira sax lay wax jox ko ki nga sukk ci kanam moom noonu ki nga jàkkaarloo noonu muy sëñ Muntaxa looy wut ci moom bul bul bul taalal sa loxo na ree rek fexeel mu ree sëñ Muntaxa bu ree rek sa aajo faju ki nga jàkkaarloo noonu ñëpp dañuy nelaw mu toog di ñaanal réew mi ki nga jàkkaar loolu noonu muy sëñ Muntaxa wax naa la bu la rey rek jugal dem bu tàllal loxo bu fa xaar muy ñaan di tufli na rey rek borom mbég mi sëriñ Basiiru Mbàkke mooy baayam kàngam ba moom lañ ma tuddee moom lañ la tuddee ndeysaan ñoo bokk turandoo mën a yow gis nga man attaqué wu ma kenn déedéet dëgg rek laay wax ku def lu baax ma wax ko ku def safaan ma wax ko tey de rusloo nga Ousmane Tounkara mi nekkoon amerig ci otoom di dal ci kaw soxna Bali Muntaxa rusloo nga ko ndax gëmoo ko li mu doon wax yow gëmoo ko ndax boo ko gëmoon doo ñëw Touba Akhenaton mi doon taf suñu kilifa diine di leen saaga rusloo nga leen rusloo nga leen ñi nekk bitim réew doon xas suñu kilifa diine di leen saaga tey teg nga leen gàcce yow président Bassirou Diomaye Faye nii la yarul rek ñu ñaanal la والله بول خيج بول خيب الله وي بوكو خيب سوسما بو توبا ولا بو تياون خمنا بو فجو جي نغاي ديم تياون واو دا نييب نغاي يمالي كليفا دين ييب نغاي يمالي دا وخنا لا نينا لير جي خيج تياون موي خيج توبا دا لير محمد رسول الله لا لير جي خيج لا يوف لا ين موي خيج لو دا نياسين موي خيج مدنا باي موي خيج تينا با موي خيج نياسان دا لن لودو ليرو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو رلي تي نيكون kon jappal ñi bu baaxa baaxa baaxa wallahi jàpp leen du nu war du la teg loo munul te ful tol ñu ngi lay ñaanal ci bigna, man de tey bég naa ci yow bég naa ci yow lool lool lool lool ni dem ba téye loo suñ ba xaa bi ko ah sëñ basiru moom nañ ko xoolaat nañ xoolaat nañ ko jàppale nañ ko ñaanal nañ ko ñaanal te gis nga lii mooy Sénégal yar ak teggin mooy senegal koo gis mu réew nga ñu ngi ci internet bi ñuy saaga ndey di bind lu ñaaw di wax lu ñaaw ñoom ñëpp boo xoolee takkunu seen yaay ñoom ñëpp takkunu seen yaay seen yaay da doon foo rek ba am leen ndax ku judd ci farata dus ngaa jël sa téléphone di saaga nit wala nga jàkkaarlu def sa vidéo dagal ay saaga nit ndey ku judd ci farata doo ko def ndax yonent bi nee na moytu leen saaga seen bopp ñu ne ko yaa Rasulullah nan lañ di saaga boppam mu ne ku saaga ndeyu jàmbur saaga sa bopp mbokk yi fi dese mooy diine ji te ñii ñooy kilifa yi tey xoolal tey président Macky Sall foofu nga toog toog na fa ba taay fa nga toog toog na fa taay santal yàlla sëriñ Bassirou ci li la yàlla defal président santal yàlla pale bee Moussa Fall dugg da nga romb su Macky di génn da ngay taxaw tey yaa fa ne tey booy boo doon génn da ngay Macky Sall Macky Sall day taxaw santal yàlla te xool ci président Macky Sall doole ji mu amoon kàttan ji mu amoon ci réew mi ci pale ba tey këram googu def na fukkat ak ñaar saa bu fa buggee duggaat da lay neex bu la neexul du fa dugg bul xeex bul xuloo sa yar gi nga war a tey continuer ko ba mu jeex bul dégg kenn bul bu la kenn dugal ci xeex rawatina nag kilifa diine yi demal fépp njariñ la nga fay jële te gis ngeen seetlu leen dara jël leen photo Bassirou Diomaye fay ba mu nekkagulee président nga jël photo Bassirou Diomaye Faye bi mu nekkee président c'est différent ndeysaan temps yi damaa dégg tubaab c'est différent ndax lan la xoolal leer gis Bassirou Diomaye Faye àndal ak caractère gi mu àndal xoolal leer gi mu àndal ak caractère gi xoolal kanam gi ni mu soppeekoo il faut mu soppeeku ndax yàlla moo dagg ci nguuram ci kàttanam jox Bassirou Diomaye Faye nabi yàlla moo dagg ci kàttan fi mu ni ku mu neexoon tey nga am ku mu neexoon tey nga ñàkk moom Bassirou Diomaye Faye mii ndax yàlla dagg ci nguuram jox ko xoolee ni mu soppeekoo bu gaaw bi te day gën a soppeeku day gëna soppé ma ngi ñaan ak sëñ bi soxna yi nan la defaral nan la défaral mu tuddati góof yoo waaw ndax yow dañu da nga wara liggéey daaw da nga wara liggéey nag da nga fekk réew mi lecc da nga wara liggéey da nga fekk nit ñi manam manam da nga fekk nit ñi bëgg lu yomb waaw bëgg lu yomb waaw moo tax il faut nga am rigueur liggéey bul xex kenn am nga xex bu reuy muy Sénégal bassir Diomaye fay waaye sant naa la de man de tey bég naa moom yàlla la yàlla jàppale yàlla la yàlla dimbale yal la yàlla taxaw ba senegal fi ñu bëgg mu àgg mu àgg fa yal la yàlla taxaw ba nga àggale ak xam nga tàmbali yomb na mais àggale moo jafe àggale moo jafe ndeysaan yal na la yàlla taxaw waaw man ba bañu am na ndeysaan te Pastef am na ñu baax ñu fa nekk ana sama benn mbokk ndeysaan damay topp rek yàgg na maa topp ci YouTube bi ci TikTok bi nii ndeysaan sànq sànq rek yónnee fan yii yónnee message ne señ bas yow doñu ñu bàyyi yaa ngi sànni xeer rek ma ne ko yéen samay xarit ngeen billahi loolu laa ko tontu ma ne ko damaa bëgg nga li may def nii damaa bëgg Bassirou Diomaye Faye am ndam xam nga li ñaan naa ko ba tàyyi dama bëgg Bassirou Diomaye Faye am ndam mais ah son excellence yaa baax yaa rafet gi nga tur bi sax dañ koo guddal ay Bassirou jaxaay xawma jox jow deneen président Bassirou Diomaye Faye di neexalaate lu li ngeen dugg ci xam nga maanaam bañ koo jay di ko wax dëgg su defee lu baax ngeen ne ko di baaxal na su baaxul damaa bëgg nga fal ma conseil conseil président bu ma fay dara nag moom ndax maa ngi liggéey man am naa liggéey bu ma fay dara dee ma déglu rek dee ma déglu mbokk yi am na benn mouvement bu ma bëgg taxawal waaw taxaw temm aar suñu réew taxaw temm aar suñu réew ku ci bëgg a bokk nag yónnee ma numéro sa numéro ci whatsapp bi numéro bi am na whatsapp 666 39 60 ñu ma ma dugal la ci. taxaw temm aar suñu réew lu baax rek nag ci lu baax taxaw temm aar suñu réew ci lu baax ku ci bëgg a bokk daal numéro bii boo ci boo ma ci yónnee message rek dinaa la duggal ci groupe bi maanaam ñu taxaw aar suñu réew foo mën a nekk nag Afrique Asie Amérique Europe fépp Sénégal foo mën a nekk rek mën lañ ci boole jërëjëf son excellence may leen ma kër nag ndeysaan may leen ma kër xam naa yéen waa Pastef tey du ngeen saaga. may leen ma kër <laughs> ndeysaan